seydina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ak fu ñu mën a nekk ñi ngi fii ci Tuubaa tey ci wetu cheikh Mouhamadul Muntaqa al xalifa al aam li tariqa al muridiya xafizahu llahu wa raahu wa ayyadahu wa nasara di leen nuyu nuyoob lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullah ni ngeen ko xamee rek baaxoo ko mooy buñ egsee ci weer yii di weeru Cheikhul Xadim muy safar xel yëpp dem ci benn bis xel yëpp dem ci fukki fan ak juróom-ñett yi nga xam ne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 wa ila jamii al muslimina amatan eh, muy kàddu yoo xam ne rek kàddu yi soññee kàddu yi cant kàddu yi fàttali loolu mooy kàddu yi ñu ñaanal ko mu fekke ko ay déwéni déwéni déwéni déwén nu di ko fekk ay déwén déwén ànd ak moom asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu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 di leen seereel sunu cant bu baax a baax sant gu sant sunu boroom ci boole gi nu booleeg sëriñ bi sant nag sant mboolem mbokki sant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 ko bokke woon démb. nan ko bokke woon démb. nu dajewaat ci. nu dajewaat ci. ci nii nu ci daje ci nii nu ci dajee. ñu di ma tudd. ñu di ma tudd. di tudd sëriñ bi. di tudd sëriñ bi. googu wàll. maa ngi leen ciy sant di leen ci gërëm bu baax a baax. cant gu rëy mel na ni sikkuma ci ci ñoom dara.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 baax. nu gën a góorgóorlu bu baax. ci gën a suñu bopp. ci gën a suñu bopp. ci lim lim nu bëggal. loolu nag. loolu nag. du lu neex a euh, génn ci làmmiñ. loolu nag du neex a génn ci làmmiñ.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 fas yéene di taalibe nag fas yéene nag di taalibe nag rek. ci suñ lépp ci suñ lépp. di yéeneent lu baax. di yéeneent lu baax. ndax yéene yéene moo jiitu. ndax yéene moo jiitu. nu yéene lu baax. nu yéene lu baax. rawatina ko yéeneente. rawatina nag ñu di ko yéeneente ci sunu diggante. di bëgg lu baax. di bëgg lu baax. te yàlla rek tax te yàlla rek tax.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 sant rek ñu ci war. te sant rek ñu ci war. xew-xew yi bari na lool. xew yi bari na lool. te jàmm ji moo ëpp fii. te jàmm ji moo fii. xam nañ ko ñun ñëpp xam nañ ko. sant rek ñu kon nag sant rek ñu ko wallaay ak góorgóorlu. Eh, kon nag Cheikh Mamadou Bachir. kon nag Cheikh li ci des. nga gële jox nañ la ndigal. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ñu jéem a rek.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 liimaan ak lislaam ak lihsaan ñëw ma ci nabiyul mursal ñëw ma ci malakul muqarab kon li doon wuti nag mooy lii ko suñu borom defal tey muy ilay qaadallahu ma lam yakuni wala yakun abadan at mu jot tam suñu borom tegaat ko natt yu gën a ko daan teg diiru muy nekk Gabon ba jóge fa ba dellu si Sénégal ba dem gànnaar ba jóge fa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 ladaa daari salaam wa inda tuubaaya bi jismin wa qilaam kon loolu wane woon ne fii koy defee nawaytu shukruka fii zal yawmi yaa qabla raai wa chiini am fu wax ne alayya shukruhu bi fardin wa sunan indahuma wa inda daaratil minan yooyu yëpp itam day firndeel rek ne sëriñ bi fii la ko yéene woon defee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 te doxee ko noonee mu ko bëgg woon wa ma zalika ala allahi bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yasmini llahu inda jeewali iblisa id naadaytuhu bi yaa wali